pour la république di parti présidentiel ak coalition benn bokk yaakaar ñoom ñi nga xam ne ñooy lëkkaloo ñoom ñëpp daal la ka nga xam kat moo leen féete kaw di Macky Sall loolee ma nga ca donkaasi gi ci atum 2012 ba ci atum 2023 moom nag li xaar ci moom mooy daal mu fësal candidat bi nga xam ne moo ko war a wutoo ba tax na lim bi nga xam ne jéggi na dayoo ci candidat yi nga xam ne nee daal ñoom samp nañ seen dënd ci jongante bii waaye tamit gis nañ ne li mu gën a fës daal mooy ca benn bokk yaakaar la gën a bëri ndax ñu bëri bëri neen daal mbër lañu kon difficulté bi maanaam jafe-jafe gi ponkal na ponkal bu nga xam ne daanaka critères yi nga xam ne daal moo tax ñu mën laa tànn loolee sax moo amut am na ci ab président assemblée nationale am ci ab ilimaanu jëwriñ ab directeur de cabinet ki nga xam mooy nekk président conseil économique social environnemental ñoom daanaka sax seen poste nekk na poste yu ponkal nga xam ne lu ci mel ni kat mbay mi ak ne mooy de bëgg bi ak yeneen di poste yi nga xam ne am na doole lool waaye nag amul ci benn candidat bu nga xam ne ñi nga xam ne ñoo fas yéene jogante wala sax ci benn ñoom koo xam ne am ci expérience mu daal di liggéey mu daal di nekk ci bopp APR wala sax mu daal di jiit ab campagne présidentielle li nga xam ne tamit mooy candidat yii war a fas yéene jongante ci li nga xam ne kat moo bokk ci waa benn bokk yaakaar amul kenn koo xam ne jot nañ cee diriger ab législative ci wàllu woowee sax dafa mel ni kat métit gi daal mi ngi ci capacité candidat yi daal di fexe ba liggéey boole ñoom ñëpp lépp tamit ñu daay dëgmal xool benn yoon waaye amul ci benn koo xam ne tamit nga xam ne moo fas yéene wuutu Macky Sall mii nekk daal am pasté fukk li nga xam ne liggéey ngir rek daal di dajale ñoom ñi nga xam ne dañoo féewaloo kon ci wàllu woowee daal dafa mel ni kat candidat yi nag ñoom kenn amu ci expérience personnelle bi nga xam ne loolee ñeel na wàllu présidentiel kenn koo xam ne jot na diriger parti républicain bi di benn bokk yaakaar waaye ci difficulté boobu nag nga xam ne daal tànneef li nan na koo am gis na ne kat ab critère bu nga xam ne daal lay gën a fës rek mooy jege gu jege njiitu réew mi ci fàttali parti socialiste ak parti démocratique sénégalais ñoom dafa mel ni bukki ba leen mattoon ñoom kat ñoo yor waa APR yi ndax ci fàttali tamit ñi nga xam ne ñooy PS moom ñàkkoon nañ nguuru ci atum 2000 libéraux yi daal ci toftalu ci atum 2012 daanaka sax ñoom ñu ñàkk lépp kon la nga xam kat moo leen mattoon moo yor waa parti bii kon dafa mel ni kat loole sax jarta nëbb kon ñi nga xam ne kat mooy ci wàllu yi wala ci wàllu wële daañu daal xeex bu métti bu nga xam ne ku ci nekk rek jumtukaay jumtuwaay yeneen nga xam kat moo nekk sa wet nga mën koo jëfandikoo kon xeex bu nga xam ne daal ñu ngi koy duppee ab mortal combat ci ñi nga xam kat ñoo nekkoon ay xarit ak ñoo xam kat ay xarit bees lañu. kon ci nii mbaa ci ne dañuy yaakaar ne kay mbir mi nar na daal di yàqoo ca biir kon tamit ay candidat yu xamee buñ leen tànnoon daanu mer waaye tamit fas yéene jàmmaarloo ki nga xam ne nar nañ koo tànn la nga xam ne daal moo wérte wóor mooy bu deful nànk daal mbir mi fan ko nakt rek war na koo weesu